surtout que les mois, il faut dafa sécurité Quand mhm. la aussi euh, Lolo, man nit très bien alors Mohamed, junj nos collègues, mais est-ce que euh, madame euh, le, ministre partage la désobéissance civile bi nga xam à Touré ki nga xamné mom moy Ousmane Sonko nga fi ay est-ce que japp nga injusticiable dafa poser ay conditions pour répondre à un procès.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

1000 milliards yoy Sénégalais yépp la soxal xam nga li ñaari individu ñaari citoyen la soxal milliards ils ñun ñëpp la soxal loolu bu fekkee ne urgence judiciaire amoon na foofu la urgence bi gënoon a donc vraiment day nit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

gis nañu bi affaire Karim Wade gagner la justice est indépendante dans un hôtel de la place je me passerai de la publicité. Mhm. alors entre temps qu'est-ce qui a changé parce que ce sont les mêmes acteurs de la justice ñom ñoy agir. vous connaissez le procureur Ousmane Diagne Ibrahima Bahoum, Serigne Bassirou Gueye vous avez travaillé avec ces hommes Les lan moo changé ci votre bi justice indépendante mais parce que rien n'a adina lepp du taxaw ben place li changé. moy mhm. président Macky Sall troisième mandat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 mais pas tous les acteurs de la justice. Mm. mais les mots, les et puis gis nañu sax li procureur euh, li procureur ne voilà viol amul kon nañu retenir les nains sax ça ma ko déggee man du commenter du may faral di commenter ça euh, voilà décision justice mais <laughs> xaw na maa xaw na maa jaaxal. bu fekkee ne lii amul bon. Mm-hmm. ce qui fait que vraiment. Mm-hmm. heure bi li qui wax ci procès bi Sénégal en tout cas améliorer l'image du Sénégal. au-delà du procès. il y a une femme la deuxième première ministre du Sénégal ce qui est historique. Il mm-hmm. y une une ancienne présidente d'institution comme. Euh, le conseil économique social et environnemental ñu koy rafetlu. nga a aussi une première femme tête de liste de la coalition majoritaire dans une élection législative. Mm-hmm. donc une femme qui incarne un leadership. Mm-hmm. Banca, kaa nga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 ma liggéey ci des années et des années mën naa mettre au défi ne fii Sénégal ëppul ku ma fi gën a défendre droit des femmes mm-hmm. kooku kenn du ma ci kenn du ma ci indil benn benn complexe un cas précis c'est sur des cas généraux là, wax parce que du ma commenter mm-hmm. parce que la ñu fa wax ak la ñu fa waxul fekkeewu ma ko fekkeewu ko parce que euh, du ma jël benn cas pour dire ça représente l'ensemble des cas du Sénégal non non non c'est juste un échantillon awma ci awma ci commentaire li may wax mooy il faut qu'il y ait une justice indépendante loolu laa ci wax voilà et que kenn a dit ça le droit de de, de réclamer justice Ken déniewul aussi euh, ki ñu accusé le droit de se défendre mais li ñu wax dans le contexte où on est pour nit ñi jàpp ne fii justice libre et indépendante am na fi li ma wax sénégalais 9,5% virgule mais c'est la même personne qui a moins d'un an ci biir campagne électorale nga posé woon deux conditions pour def débat public hum. ak Ousmane Sonko mooy hum. d'abord mu dem yuy ji justice hum. seetal boppam si affaire Adji Sarr ak tamit mu prononcé wu sur la Casamance lan mu léegi seen rapprochement si diggante bi dafa remplir condition yooyu wala ay circonstances moo soxna si déggoo li ma la wax damay assumer li nga xam ne moom laa doon def nekkoon dans mon rôle mu nekk dans son rôle

Ousmane Sonko dama à euh, assemblée nationale été liste euh, Benno Benoît Yaakaar peut-être quatre semaines avant député Benno Bokk il ma agressé Il fekkee ko que ñëpp journalistes député Pastef défendre moi. Madame, pour nous, dem président Macky Sall l'adlène, nous qu'il refusé foqati leen mandat avons voter Nous, ñuy àddina di dox ñu F24 mais. ma recevoir ay menaces ak i saaga moom ci boppam mu euh, jël position de soutien. avant ñuy doon ay politiciens soxna Ndeye Fatou ay gor lañu. avant ñuy doon politiciens ay gor lañu ban gor la ci wàllu gor nag wax ma ci affaire jikko ci affaire euh, juddu gor ci affaire jikko la. Mm-hmm. voilà ku ma défendre man ci condition yoo xam ne noonu la demee.